dëppoo na capuchon ba caatu yoo fa ngi noonu Corona Corona c'est bi sa sodoor yaa fo siriyaan de deba kay naa ko xole de ju mi ñaan yaa kan thank you Yes, yes, yes. Monaco tey naa baaxul de jiw mi ñaan yaa kan fab tooyee. saa tubaab laa bi sa sonor yaa fo siriyaan de débat tey naa baaxul de jiw mi ñaan yaa kan fab tooyee. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi combat bi dox ci diggante Youssou Ndour Thiatou Yoff Thiatou Yoff a ngi waree Yoff Youssou Ndour a ngi waree Guédiawaye arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nanga ak li làmb bañ arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre bi pare na Youssou Ndour pare na Thiatou Yoff pare nañu arbitre bi sifflé na dimanche 16 janvier il est 21h43 ñaari xale yaa ngi ci diggi géew bi Caatu Yoff ñaan na taf ci gémmiñ gi Youssou Ndour ñaan na taf ci bopp bi ñoo ngay demee wet ñoom ñaar Caatu Yoff ci bu na suuf bàyyi ji ni noo gisee combat bi. Ousseyn ñoom ñaari xale yi ku ci nekk bu nga simee xam nañ ni tëddee woon di nelaw fonk nga bés bi Youssou Ndour boo gisee état de forme bi mu indi malgré wàññi na poids par rapport ak combat bi mu jugee waaye gis nga ni mu indi nga xam ne vraiment liggéey na ci combat bi caatu yoof noonu ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk Bébé Diouldé nga mujjee daan kii daan ko arène nationale kii daan ko stade Diop Iba Mar Youssou Ndour ko mujjee daan stade Diop Iba Mar caatu yoof daan ko fii ci arène nationale ñoom ñaar ku ci nekk Caatu Yoff yaakaar naa su ma juumul bi mooy deuxième combat bu mu bëre fii ci arène nationale Youssou Ndour combat bu njëkk arène nationale mu ngi nii ñoom ñaar ku ci nekk fi mu toll nii dafa am loo xamante ni foo nga ñu mën la ko yebee nga mën a bëre ci combat bi génn ci mooy Youssou Ndour géejawaay gépp dañoo man koo am ci moom yaakaar yëpp ko tey ginnaaw bi bàyyam génnee àdduna ba tey bi mooy deuxième combat bu mu bëre Caatu Yoff nekk xale boo xam ne Yoff am nañ ci moom yaakaar mu war en tout cas lu mën warul yomb ci ñoom ñaari xale yëpp. warul yomb ci ñoom ñaar ñaari xale yi. combat bi nañ koo dox. yàgg nañ koo bëgg. waaye tey la ko yàlla doo ko sottal. Youssou Ndour Thiatou Yoff. est-ce que dana loolee woon sax ñoom ñaar. combat bi jàmmaarloo la taxawee. léegi ñoom ñaar kan nga jàpp ni. lan la ci waxoon lu garaaw loo xam ne jàpp nga ni kii kat waxoon na ko adversaire bi. Thiatou Yoff neewoon na. waaw Lamine Golo moo tee jël Youssou Ndour ndax Lamine Golo ñemewu ma. waaw Youssou Ndour ne ko sama papa Lamine Golo moo ma yeewi moo ne ma naa jël combat bi kon Lamine moo nekkoon ci diggante bi te Lamine yeewi na leen. yeewi na kon de caatu yow war naa xam ne Lamine ñeme na ko ndax Lamine gis naa ko tey mu def lu mus a def indi ay butéel sax jox Youssou Ndour sotti ko ko mu leer ni combat bi am na fu mu toll Lamine Golo ndax Lamine ne ko teeloon Lamine moo ko jëlloo waat. moo tax loo ci gis. Lamine dafa ànd ay dernier moom. waaw teg ci 16 ñu sottee ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour ba noppi. mu jël ay butéelam jël initiative am wane ne lamb ji tey sama lamb la bi ma ko fekkee ci biti dama ne ko tey am nga bés mu ne ma bés bu mag waaye ba ci kanam. waaye ba ci kanam Ousseyn ñoom ñaar nag combat bi combat calcul la du combat doole du combat xeex du combat bëre combat calcul la ñoom ñaar ku gën a sa morom mën ngaa daan ci mooy stratégie moo koy bëre stratégie mooy naxe stratégie mooy daan waaye xeex daal bëgguma ko ci kenn ci ñoom ñaar. kan xeex en ci combat bi. caatu yoof caatu yoof actuellement moom daal xeex bu ko woowoon bu ci woowoon Youssou Ndour Youssou Ndour wuyu si ko. ca Youssou Ndour dañuy gis ne ni muy xeexee baaxul chaque jour day doo gauche droite mais bu doo day gëmm du loolu loolu loolu bokk na ci lu ñu defar tey ba coach bi di Lamine Golo bi ma ko laajee. ci open press Youssou Ndour daf na ma Youssou Ndour daf ma ma rek donte une minute la ma xeex ko caatu yoof waaye xeex boobu caatu yoof dina xa woo Youssou Ndour waaye Youssou Ndour bu doon maay moom du ma ko wuy si boo ko wuy see ci xeex bi caatu yoof da lay wor ñëw ci bëre bi te ñoom ñaar ku ci bëre kenn ki xeex kenn ki day ñàkk làmbam Ousseyn. li ma ci mën a xam mooy caatu yoof doole daanu ko. déedéet bëre dëgg koy daan. bëre koy daan parce que boo xoolee am na taay bi. am na gabarit bi am na doole bi Ouzin Caatu Yoff boo ko gisee nii mu toll nga xam ne vraiment ndaanaan la ci làmb Caatu Yoff actuellement ci làmb li mu war wane ci làmb yaakaar naa ba tey waneeku ko waaye saa yu amee combat ñu ne am na bis waaye Youssou Ndour combat bi weesu da cee jàngale lu bari diggante ma Bébé Diouldé dañ ko wër ba muy waaj a daanu bañ yaakaar daanu na mu yegale xale bi jottali ko daan ko muy wane ni ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ ay champion lañ ay ndaanaan lañ ci làmbu seen kenn ku ci nekk làmb ji soo ci génnee mën na laa yóbbu fu sori sa carrière mën na defaraat sa làmb ba tax na xale yi yàqamti wuñ ci dara bi ñu sottee ko seen gàllaaj waaja waajaay bi yàgg na mu mel ni Modou Lo Balla Gaye Ousseyn bu sori ñoom ñaar ñii combat bi àtte na boppam tey combat dafa am stade Iba Mar Diop combat am fii stade Iba Mar armée moo fa doon bëreeg xale bi nga xamante ne mooy ambulance da xeex door mu daanu door mu daanu door na ko daanu waaw door na na ko lu ma la waxoon nañ ko mu daanu Youssou Ndour bu xeexee ñàkk làmbam Youssou Ndour bu xeexee ñàkk làmbam jaat yo jaat yo mais mais mais damay sant yàlla bu